Música jërë ngeen jëf dalee nag jàmm ci xeexew biir réew mi tey ajuma ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru avril ñu tàmbalee ko ak gréew pharmacien yi nga xamante ñoom ñoo lëmbee biir réew mi ginnaaw yi nga xamante ni ñooy sage femme ak médecin yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir Sénégal doon amal li nga xamante ni mooy banque seen loxo ngir bañ a liggéey pharmacien yi tey tàmm li nga xamante moom mooy huit heures suba ba tey mooy pharmacie yi kenn liggéey loolu nag ñu ki nga xamante ni moom mooy docteur Aïcha Goundiane bi nga xamante ni moom moomoon grande pharmacie Dakar Dakaroise te ñu jàpp na jamono ji dañoo daal di nangu bërëb ba nga xamante ni fa tegoon mbir moomu ngir taxawal fa li nga xamante ni moom mooy beneen pharmacie waaye tamit ñu ngi sàkku ñu daal fi jëlee ki nga xamante ni moom mooy directeur bu pharmacie ak médicament bi nekk ci biir réew mi ñu wax ne nag dinañ daal di jëmmalaat li nga xamante ni mooy grève boobu ci fan yi jëmaat ba keroog ñuy am li nga xamante ni ñu ngi koy sàkku maanaam ñu delloo ki nga xamante ni mooy docteur Aïssa Goundiam fa nga xamante ni fa la moom waaye tamit ñu jëlee fi ki nga xamante ni moom moo jiite pharmacie nationale bu ak médicament beneen mbir muy mbiru li nga xamante ni moom mooy wàllu passeport diplomatique yi nga xamante ni leen te ñu nekk ay député bokk nga xamante ni moom mooy àttekat bi ba tax na ci mbir yi nga xamante ni lañ leen muy wàllu luubal ak association de malfaiteurs càcc ak blanchiment de capitaux ak salfaañi ay këyit yoo xamante ni daanaka teguwul ci yoon li nga xamante ni nag moom mooy juge bi jàpp na ko muy ñu tëj leen li nga xamante ni mooy ñaari atu yoo xamante ni ñetti weer rek lañ ci tëdd loolu tamit ñu daal di koy bëgg a teg ki nga xamante ni moom mooy euh, Sadio Dansokho mi jàpp ne moom dafa bokkoon ci mbir moom nga xamante ni mooy wàllu luubal yooyu moom nag ñaari atu kaso lañ ko daal di bëgg a te lépp li daal tëdd li ñu demandé woon muy ñu bàyyi leen diggandiku loolu lépp dañu daan ko bañal ba jamono jii danañu delloo ca kaso ya ndongo yi nga xamante ni ñoo nekk ci daaray kaw yi te bokkoon ci ñi nga xamante ne lañ yóbbu woon ci université privée yi daal dinañu jox ñetti fan état bi ngir ñu jox leen seen diplôme yi nga xamante ni war nañ ko jot ginnaaw ba ñu amee seen formation yi ba pare gi 2018 ba léegi ñi ngi topp ci li nga xamante ni mooy seen ay diplôme ngir ñu mën a daal di wéyal seen ay mbir ngir uti liggéey ak yu ni mel ki nga xamante ni nag moom moo jiite ndaw yooyu di Ousmane na ñetti fan la ñu may ñi nga xamante ni ngi nguur gi li nga xamante ni sàkku nañ ko muy seen diplôme yooyu lépp lu état bi gis rek xam ne mooy loolu ndax ñoom mëntu ñoo continuer wéy ci li nga xamante ni moom mooy toog bañ a jot seen diplôme yooyu nga xamante ni war nañ ko jot te ñoom jeexal nañ seen formation ci weeru mai ci atum 2021 bi ñu génn dañu jeexale ak mbiru sàcc 3 milliards yi nga xamante ni ñu ci tudd benn maire bu bokk ci yeewi askan wi mbir moomu nag mooy ki nga xamante moom mooy Ousmane Sow nekk PDG d'Odis Group international la ñu wax ne moom moo daal di luubal xaasu bëree bëri bu toll si ñetti milliards te mu ànd ak benn maire boo xamante ni mi ngi bokk eh, ci yeewi askan wi mbir moomu nag mi ngi amee ginnaaw bi nga xamante ni tudd nañ ci ku tudd Mansour Bouna Ndiaye mi nga xamante ni jamono ji dafa daal di daw kenn xamul fu mu nekk ci mbir moomu nag ñu doon luubal ay terrain di ko jaay ay nit ba mu toll ci ñetti milliards te sax doon sàcc li nga xamante ni mooy signature ki nga xamante ni moom moo jiite impôt et domaine di Bassirou Samba ak ki nga xamante moom mooy directeur du domaine di Mamboy Diawo mu nekk ay ne dañ ko doon sàcc ñuy wax ne sax lu toll ci ñetti téeméeri million daal na jaar ci loxoy maire boobu nga xamante ni moom moo nekkoon maire bi bokk ci waa Yewwi Askan Wi. lii moo gënoon a fës ci xew-xew bi réew mi tey ajuma ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru avril ñuy di jox di daje suba ci yeneen i xibaar fii ci réew mi officiel.